mbokk Leewtoo ñu ngi fii ci Pikine hee jële ma mbedd mi yàgg maar ànd ak moom sama bi Ousmane ko ñu boy ña xoolal borom moto ba muy def yaa ngi noonu Pikine a ngi mbokki Leewtoo waa mais grand ñu am ngeen confiance oui am nañ confiance bu rëy sax waaw ndax Pikine moom ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay li ma bëggee amoon laa bëggee boo ñaa bëggee ko ëmmal seen ñu nekk samay booy am jom am fula ñu nekk seen ginnaaw di leen jàppale ñun Pikine ñëpp nag ñoo far boo ñaa depuis ba muy bërim ba léegi ñu ngi ànd ak moom ak Ama Baldé mais tey nu muy demee tey moom xam naa ne lamb ji rëy la lu mu may dara Lac de Guiers ndax Lac de Guiers du bëre day taxaw man daal damaa mu ñëw fekk si ko bëre ak moom daan ko ndax boo ñaa moo dàq bëri Lac de Guiers yàlla may ko ñu ngay sànni ndox la doomi dégol bi ñu ngay sànni ndox ya xoolal ma xale bi ñu ngay sànni ñu ngay sànni ndox yi ñu ngi koy joxe seen biir xale yi décidé nañu yàgg maar mbokki Leewtoo doomu dégol ji waamee mbër waa mbër nag ci loone ma ne ko ci loone waaye sant jaajëf waay. waaw mais fu mu kontaan ngeen de. non lool lool lool lool sant yàlla bu wér a wér. est-ce que tey dina yomb. day gën a yomb. tey mooy gën a nooy sax waaw tey mooy gën nooy waaw lu leer. ndeysaan yaayam génn na moom ca bunt ba xoolal kol ba. loolu rek doom ji am la ju bëgg jàmm rek ngay am ci kàttanu yàlla incha allah. comme muy bëre métti na de. waaw métti na waaye nag yàlla moom lu mu nattoo doomu aadama. man nag lépp ci loxo yàlla. combat bi koy seet ndax dama xam sax naa ko bàyyam ñaanal ko yàlla na ko yàlla suñu ñaan gi yàlla na ko yàlla fekk yàlla na fekk fe mu ne. yàlla na ko yàlla may nam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kontaan nañu lool lool lool lool ci moom kontaan nañu lool ci moom. waaw mais ana sama nijaay déggoo. déggoo def na stade. waaw dem na stade. Ah, yaa ngi la. waaw mais lii lan la. lii laa ko gisee de waaw. tey ah? ah? lii mbër solo rek bu ñu takk nii rek. waaw. looleen ñun. ndam la bëgg pare nañu physiquement. mentalement moralement. waaw mais Mor Sala dañ ñu ko jox rek ñu takk waaw mais dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw mbër nañ. waaw ñu ngi lay fay bu baax a baax. waajalee sa waaw comme d'habitude rek comme ni ko daan waajee lam moom mënut a rëy si waaw ñu ngi waaj bu baax a baax di ñaan suñu borom may ñu ndam mu seet kaw la de guerre ñu ngi koy ñaan bu baax a baax yàlla ñu ko suñu borom defal bilaahi noonu la demee ngeen waaw ñu ngi ñaan ndam daal ñu ngi ñaan ndam pare nañ ñu bu baax a baax waaw. waaw. ñu ñaan ndam ñu ngi naan ndam baal. pare nañ pare nañ instant yi waaw dem daan rek ñib si incha allahu rabi lu leer. même moo ba lay bu jeexee rek jeex na ay pikin. ay Pikine gaay na nañ dafa jeex ba jarul xëccoo waaye li ma ci neex mooy gaa yaa ngi koy lijjante ca buntu ba fa mbër mi war a génne oto yaa ngi taxaw maire baa ngi gàddu saagam def tagal ba yàlla xool sotti ko ey yaayu mbër waay yàgg maar xoolal fa sotti ndox ma ah lii daal du ma ko commenté ñoo ko gisandoo laa ilaha illallah biram biram ku am yaaya la may ku am yaaya may ndax boo gisee tey yaay ji ni mu taxawe nii di ree am sérénité franchement nga xam ni fii confiance bi fii dégagé daal na zéro stress. lay dox. waaw mi mi ngi ree rek. yaa ngay takk xoolal ma la muy def. eh eh Pikine waay ah avant combat Boy Niang di waaj a génn di waaj Boy Niang mbër mu mag mi moo ngi nii xale Pikine yëpp a ngi génn waa écurie bi. am na jàmm yi mbokk yi xale yëpp a génn supporter Boy Niang. xoolal policier yaa ngay organiser. organisé yaa ngi doomu ndeyam mbër yaa ngi nii. tey bis mënut a ñàkk nii ndax Boy moo xewle barke borom Touba. taal nañu bopp ba. xoolal bomb ba taal na ko. gis nga mbooloo may bëri yàgg maar moo tax. liggéey bi du neex noonu. yaa ca gis. dañuy wàcce ña. ne leen puus leen. ndax xale bu am yar la bu am teggin di ñaan yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guub. ndax dafa bëgg ay waajuram fonk waa koñ bi respecté ñëpp mag ndaw tout le monde te dafay dëkk si bu bees ñu ñaan yàlla mu am ndam ci yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi de moom amuti vis ma wax foo ko jëlee déggal moo bay ñëwaat rek bu jeexee rek jeex na man daal jaaxle naa ci xale yi loolu daal jaaxal na ma. waa mbar lan mooy bu jeexee rek jeex na. bu jeexee jeex na amatul bu jeexee jeex na amatul. Ah, bu xas ba jeex. jeex na amul leen xale bi màgg na cappaajol yi màgg na billaahi barki rasululaahi dafa màgg tey ngeen gis lu ngeen bu gis. moo ngi noonu. jabar jaa ngi nii jabar ngi noonu ah dem na delluwaat na tey daal lamb ji dafa saf jigéen li ma jaaxal yaay dafa génn def ay changé yére duggaat yeneen ñaari yaay na ci ginnaaw fii jàng ak ñoom. mbër maa mbër maa ngay génn xale baa ngi noonu xale baa ngi noonu daal ba Cheikh na Cheikh Saliou baa ngi noonu xool ko ngay won gaay nañu def ah sànni na biscuit yo boo sànni droit yuuxu laa ilaha illallah xoolal ci wetu yaay ji lay sànne nañu ah quelle émotion yaay ji na fekk defoo li nga def xoolal non man maire ay bi yaay ku na mburu ya yaay ja na sawma jox na ko policier ba ah laa ilaaha illallah yaay jàngay saraxe waay yaay jàngay saraxe waay yaay booy ñangay saraxe bokk ak moom sarax sa mbokki Leewtoo genn booy ñaa bi affaire la on travaille dans des conditions très difficiles. na ko seulement na. ndeysaan waaw si si rek. lépp ci defar la on les comprend boo ñaa ngay génn mu ngay génn yaay jàngi waxtaan ak moom yaay jàngay waxtaan ak moom joxat nañ ko siwa ndox ma ay waay yaay yu mu nar ci ndox ma encore lii dal na xel jox la ko biteel mu sotte ko dal na xel ma moomaane nga génn yaay jox lay biteel ñaareelu bitel baa ngi noonu yaay ji jox ko muy sango eh Boy Niang ak yaayam waaye Boy Niang ki mbokkam ak i supporteram laa ilaaha illallah xele bi sotteekuwaat na beneen fu ñu jëm buntu ba laa ilaaha illallah déggal way wa ji jël na kol ba laxasoo ko teg na ko ca ba ca kaw tagal ba ay waay ji yaay koy ñaanal dekk leen loxo ya xoolal lu rouge ba xoolal lu xonq la ca gannaaw yaay jàngi ñaan yaay jàngay ñaan yaay jàngay ñaan ñaanal Boy Niang laa ilaha illallah laa ilaha illallah ay way doomu dégol bi ah di na ko sotti na ndox ma sol moo ko mu ngay sotti yaaya ngay sotti ñaa Boy Niang sotteeku na ndox ma yuuxu na ay la ila la xale bi dugg na ca oto